ci Touba bokkatul mubarak askanu yëpp ñoo joxe loxo ci ñëw soxna Dior Amsa Mbàkke mii nga xamante ni yëngu ci politik ñëw nag teewal fii soxna si njiitu réew mi waaye bi muy ñëw indaalawul nag loxo neen ànd ak Moustapha Seck di responsable politique si diwaan bii mu ko tàmbalee bokk na si nag joxe ay dons yu am solo ñeel ay café ay suukar ak yemu àndal ngir suukaru koor soxna joor mii nag fa seen wàcc si terrain bi ngir jàppale si wàllu politique couple présidentiel bi moom nag tàmbu na Moustapha Seck ngir ànd ak moom ñu liggéey ngir yokkute dëkk bi waaye tamit jàppale njiitu réew mi. ndax suñu borom tabaraka wa taala moo ko nattoo mu ñëw bu xaatul mubaarak waaye sëriñ am sa ci boppam mi kilifaam am na quartier am na ay nit yu fa nekk muy li dal muul damay dal ci turu quartier bi fàttali ma ko Makarul muy ab village am mbooloo mu bari nekk fa xëy na mënoon naa gàddu li mu yor yóbbu ko fa mais defu ko bëri na lu am loo xam ne si nii démb ak bërki démb la soxna joor am satu dañoo xamante bu yàggul waaye dañoo bokk menn maam xëy na li ñu boole ba ba mu ñëw fii loolu am na ci sabab kon ñu ngi ko ciy sant bu baax a baax a baax a baax yaakaar naa ni yéen ñi dajee fii musuma leen a dajale ngir ni benn responsable dafay ñëw ma di leen boole ak moom musuta am guléet ma dajalee ñëw ab responsable femme ñëw toog ma am pas-pasu nar leen a boole ak moom ngeen liggéey ak moom guléet la te am yaakaar ak yaqiin sax mën naa ko wax ci moom ni li nga xam ne si nii moom la ko première dame de liggéeyloo ak son excellence président Macky Sall bir na ma ni dana accomplir mission boobu noonu te bu leen àndee ak moom wala bu ñu àndee ak moom ak ci liggéey boobu noonu xëy na kenn duñu ca ëpple loolu mooy sababu ma indi ko fii am pas-pas boole ko ak yéen soxna si yàlla dafa def ñu envoyé ko Touba mu ñëw fi mu war fi am benn liggéey bu mu fa war a def liggéey boobu nag bi mu ci bi ma demee Dakar toog ak moom ñu waxtaan ci parce que kenn umpale wul ni bëri na ay projet yoo xam ne si nii euh, président mi ngi koy taxawal lu toll ci 450 milliards taxawal benn. mécanisme boo xam ne si nii fas na yéene jigéen ñi ak ndaw ñi mu financé leen loolu mooy sababu ñu ni ko ah, yow de dañ lay envoyé fu mel ni Touba nga gën ñoo taxaw ba jigéen ñi mën a si seen ci plateforme wu DER bi su ko defee lu ñu ca mën a def ñu def ko ci. loolu yaakaar naa ñu ngi ciy liggéey pendant une semaine bi yëpp wala 15 jours yi passé kon foofu danañ fi taxaw tuuti remercier son excellence président Macky Sall parce que mécanisme bi mu taxawal. war a financer soxna yi war a ndaw ñi loolu mooy la bonne politique loolu mooy politique bu baax ndax am réew jigéen rek ak ndaw ñoo ko yor bu yëkkatee lu toll ci 450 milliards de francs CFA séddale ko ci ay secteurs yu différents lu mel ni DER lu mel ni euh, fonds yi lu mel ni promise yooyu c'est des ay ay ay ay ay makkaan lañ yoo xam ne si nii danañu taxawu ndaw ñi taxawu jigéen ñi ci seen financement yi ñu mën koo defar ba mucc ay ñu jox leen ko dem liggéey kon loolu dañ ko ciy remercier bu baax a baax a baax ndax loolu rek la ñu doon xaar ci moom bu yàlla dogalee nag mu boole ñu waat ak koo xam ne day ñëw gën ñu cee taxaw ba ku si sa dossier lu mu ca man yóbbu ko ci premier dame ñu xool ba mën ko financé loolu yaakaar naa ni tawféex lañ koy def yàlla dogal na nag bi muy ñëw dafa indaale woon suukaru koor boo xam ne si ni moom la amoon pas-pasu nuyoo ko soxna yi nga xam ne seen yi ak mbootaay yi yaakaar naa recensé nañ la tollu ci quarante et quelques mbootaay ñoo fi nekk ñoom la màgget doon lim léegi nii ak ay personnes individuelles yoo xam ne yoruñu ay mbootaay mais ay porteurs de voix lañ ñooñu bi muy leen di nuyu si mu ni dafa amoon ci ceeb lu toll ci 10 tonnes ak euh, quelques tonnes suukar ak diwlin ak euh, café yu mu leen waroon na nuyoo ñu jukki ci ay quelques exemplaires indi ko fii rek bàyyi ko si magasin bi bu paree danañu ko séddale mbootaay yi ak individuels yooyu nga xam ne si ni moom la jóg nuy si leen kon daal soxna yi encore une fois pour bañ a guddal soxna joor mii nañu ko ubbil suñuy xol jàpp ko am pas-pasu fas yéene liggéey ak moom tey jàpp naa ni li fi dégg li fiy jóg ci ay doléance dégg na ko dina ca def kéem kattanam ba nga xam ne si nii la leen jafe ak barki démb dina leen yomb kon ñi ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen waxaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ki yëkkati kàddu nag si moom dellu na si wax ñu kan mooy soxna Dior ku sëñ bi doy loo nga ko amub yar nga ko amit sax ni daa donnu njàmbaar du ànd ak bu yàgg moo tax ma leen fay sàll ni ko jas ci kanamam ni ko loo bëgg ma def national dañ koy taskal ci kanam ni ko lu bëgg lu def gis nga loolu ngeen ne dama bëgg ma gisee yéen beeg Macky hmm. la ah. maa la wax li man lay yow doo def moo leen. dégg nga de. alaal yaara sa baay moo njëkk a tabax moo njëkk a kuule at bi jaan fekk na koy riis. yaa ngi sama rakk ji jóg nga doyloo ko mu doyloo la nga bëgg sëriñ suñu sëriñ bu baax ba laaw la teg macha allah laaw la teg macha allah sama rakk ji bu ko bëgg doo ko réccu ndax day jàkkaarloog Marème Faye Sall jàkkaarloog yaakaaram def ko ci yéen te man day aada kumba bu man bu ma noon tey suba suba suba nga dee waaw danaa danaa fay saay bor lu mu wax dana ko def li ko biroon may soppeel a jot la bu waxee ren balaa ko ci diw te lu mu wax dana ko def aada kumba financement yooyu ngeen di wax ñëw na ñëw na ba pare macha allah yéen da ngeen a ànd ak ku jara àndal soxna joor am sax financement yi ñoom na yéen day xaw ma ku ngeen ma fa jàpp waaye kii ngeen jàpp bokkul ak ki ngeen daan jàpp. saamaan ja daan dem caala ba di rëbbi jàpp jàpp suñeel jàpp la na mu jàpp ko ba waaye kii ngeen jàpp musu leen koo jàpp te ngeen am ko mel ni moom. am sax am na maanaam am na personnalité am na njàmbaar sama nag yéen a ngi akay jàmbaar allah ji adama jël la baal juddu nangu jor ngaaro ko jur mbokk ndey xaal jor ngaar ku ne amat biram tay ak ma xaal biram tay bu sobri degen ko min def gile baal ko gaar fal so sobri ñaa jaay musa bu ne bi ñett doomu bi Ndiaye Moussa Ndour Samba Diop Ndiaye mi coow Ali Baba Diouf Ndiaye ni maa ngay tàngal ci Talla Ali Baba yi sa jóg mi ci tata ji ci Matar Birame Mbori Koumba Fall mi ci Matar ba ñu dem Sambé dañuy dalal bi ne nit dalee sa force Moussa Ndour Ndiaye jàng ba ma Koumba sa baay ñu xam ne Moussa la ko wax Moussa la joor nga la baal tudd ma ne ko tàggal mi bokk de ku yàlla këram dañ ak ba xaali këram dañ Moussa la Fatou Mbaye seen baay nga xaw fu dëkk moo ko moom Moussa la Fatou Mbaye ñaari yoon des am may sa ñaari yoon des sama Yacine daal cënd Babacar Yacine daal di cëru ku ci nekk dégg nga sa xiru morom sama rakk di ñëw ñu dégg ko nag ku baax sama wasi la. Cheikh Abdoulaye Jambar lañ ko dégg mu mbaagoon mbaagoon pire la sama maam di jur sama lay dafa mën a tudd sa jëm sa di jaxatoo mag ma ba mu taawu sama lay muy soxna Fall tax dem tudde xam nga man dama bokk saytu yi lay Sénégal sama rakk ñu lay Sénégal ñu dégg ko sa Cheikh Amsa moom Cheikh Abdoulaye moom soxna Marème moom mbokk nañ soxna Fall jaxatee soxna Amsa sëñ Amsa waxal ca kaw a na tudd na seen bàyyi nga loolu fu mu dëkk moo ko moom waaye nag soxna Dieng sële na seen lañ tudd. loolu am Fatou Seye la libaas. Dior Seye la libaas. libaas na Fatou Ndoumbe Dieng. Maam Ndiaye Simba. nga ñëw nga sëriñ Saliou. nga ñëw borom yërmaande sëriñ Saliou borom yërmaande bëgg jaañi. fii si bokkatul mubarak ñi fi teewoon takk woon nañ lool doon ay responsable rawat na jigéen ñi ak ay jeunes également ñoom danoo fas yéene relever le défi nekk si ginnaaw soxna si ànd ak Moustapha Seck ngir nag ndamu président Macky Sall si Touba